bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna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 di leen baal di ñaan boroom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ñaan mu nangul ñu sunuy jaamu yépp waaye jéggal ñu itam suñuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppee soppe almisbaax yi soppee al almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppe almisbaax yi nekk bitim réew mboolem ñi nga xam ne ñi ngi wétli koo jotaay bi di ci ànd ak ñun ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi bégit ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy àndee ñun ci jotaay bi di leen ñaanal nag bég nañ ci soññee yi ak jaajëfal yi ndax kat dana tax nag nit ki gën a góorlu wolof yee koy waxe noonu waaw góor dana yokk njàmbaar ngóora wala jàmbaar ngóora yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañu doon jàmbaar ndax jàmbaar jàmbaarlu dana tax a doon jàmbaar léeg ñu jot message boo xam ne dañuy yëgal ne li ñuy waxtaane am na ñu koy dégg te mi ngi jàll te ci suñu rafetu njort dañuy jàpp ne ñu bari ci ñu koy dégg te yëgluwuñ ñoo ëpp foofu yàlla nañ ci dajee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala mu doon xéewal yoo xam ne day tàmbalee fii ci àdduna ñu di ko xéewloo ba bañ a moom ëllëg yowmal xiyaam mu gërëm ñu ndax foofaay daje bu mag bi te it bis boobu doo nga jara sonnal moo jara sonnal moo jara njëkkante moo jara góorlu ngir dajale lu fa waaye yóbbu di jaajëfal ñi nga xam ne lu mu teel teel waxtu wi ñi ngi wut ay tiyaaba di jéem a rawale di ko jaarale ci ay salaatu ala nabi wala ñu koy jaarale ci ay istixfaar wala ñu koy jaarale ci njàngum alxuraan waaye itam di waaj ngir am pësteefub bëgg a fegu ci seen àdduna ba mucc ci loo xamante ne day tax jaam bi doyadi wala da koy yóbbu ci mu doon koo xam ne al toppe lay doon loolu mooy njariñu liggéey moo tax lislaam fonk ko lool jàngale ko ba noppi soññi ci nit ki ki nga xam ne waxtu wi waaj na jëm ci barabu liggéeyu kaayam ndax lan bëgg a fegu rek bëgg am lu ko doy lu mën a fegoo ba mën a téye boppam téye ak njabootam dama ne lu gën a noobul loolu amut lu gën a rëy loolu amut moo tax ki ci toll lu mu defi lu dul loolu rek lislaam ne ko dem defi looloo ma ko gënal ci lu xëy lu dul loolu rek sariya ne ko xëyoon ci loolu moo ma ko gënal yal na yàlla boole ñu nangul te def jàmm ci réew mi ni ma ko waxee ci suñu jotaayu démb noonu laa koy waxee ci bopp tey bi ndax bisu tey beet bis la boo xam ne ñu baree bari dañuy xëy ne ñogg ndax dafa am yu fi xew di fi xewaat di fi xewaat te image la boo xam ne du image bu rafet waaye day jur itam ay yàqu-yàqu ak i loru nga xam ne loru gi gën a rëy mooy bakkan bu faatu ndax bakkan yëpp benn bakkan keppa kenn nit rek moo am daa bari nag nu ñu séddalikoo rek moo tax alxuraan waxoon ne ku rey benn bakkan ci loo xamante ne nii du bakkan bu ñu àtte ba war koo rey ca fa ñu reye daa mel ne rey nga nit ñëpp ab askanu lëmm nga rey ndax kenn xamut kooka nu mu waroon a taxawee ñoo ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo génn àdduna moo xam ci seeni kawilal moo xam ñi génn àdduna ci xew-xew yi politique yi ak yeneen yi yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen te yóbbu leen ci aljanna yi gën a kawe masawu ñi nga xam ne it dañuy am alal yuy yàqu léeg-léeg ndax loolu itam day am ci pénc mi alal yooyu yàqu ci koo xamante ne léeg mu taxaw ne moo ne man tama yoon nekku ci damaa wala sama place la boo xam ne maa góor góorgóorlu ba amal ko sama bopp wala nàngam wala nàngam waaye léeg bu nit naan sama yoon nekku ci sa yoon a ngi ci te yëgoo ko ndax fitna moo baaxul rek fitna moom la borom bi bëggut ndax daa gënut ci ñun te da du neex a yamale bu ñëwee da du neex a yamale bu ñëwee moo tax lu koy indi rek mata moytandiku taxawaayu politique yi mu àndal moom yàgg naa indi baj-baj ci àdduna bi ci réew yépp waaye nag ba ci suñum réew waaye xëy na fii mu àgg yi ñuy dund muy tegaloo di tegaloo tey xew ci diggante euh, ci benn maanaam ci genn anam nga xamante ne xëy na kenn nit la ak ñim ko séqal loolu nag li muy répété wu moom yaakaaruma ne bari woon na nu muy amee noonu toll ci loo xamante ne nag mat naa waxtaane mat naa jeexal mat naa waxtaane mat naa jeexal mat naa xool ci lu gën a kawe te li gën a kawe mooy réew mi ak ñi ko bokk ak li nga xam ne mooy indi jàmm ci réew mi loola moom lu muy jar rek war na koo jar loola lu muy jar rek war na koo jar xanaa nag dafa fekk mbirum àtte moom ak mbirum yoon ak mbirum kilifteef ci lislaam day bëgg nit nangu caa tënku day bëgg nit nangu caa tënku lu dul ne dañoo dem ba ñu ëpp ca nit ña yëg ne kilifa gi kat ni muy doxale du noonu wala àtte bi ni muy tëdde du noonu loolu nag benn benn yu ko njëkk a seetlu même bu dee dëgg buñ ko waxee lislaam ne leen noppi leen ndax euh, tënku ci mbooloo mi da koy gënal mbooloo mi tas da koy gënal mbooloo mi tas ndax pëccëxoo gi muy indi bu demee ba ñu ëpp nag nga xam ne boobaa mën nañ koo faj te du am pëccëxoo lislaam ne waaw kay faje leen ko noonu léeg yu mel nii nga xam ne dangay mel ne mënoo cee ñàkk a wax te buñ la nee waxal doo xam looy wax xam nga loolu yombut ndax ay luwaa la yooyu léeg niñ ko ràbbee ñun ñiñ ko ràbbal ñu ëpp ci ñun taxagut ñu xam niñ ko ràbbee nu mu moo tax werante yi bari ci ma waxaat rek li ma waxoon démb te foofu rek lañ ciy wax mooy yal na yàlla def jàmm ci réew mi ñi nga xam ne bu ñu amee jàmm Sénégal am jàmm yal na yàlla jox leen jàmm waaye koo xam ne boo amee jàmm Sénégal du am jàmm yàlla boo ko tal ndax ñu am jàmm te yàlla soppi la may ñu kendalu jàmm ba kenn ku nekk mën a dem ci ay activité am nam ci bëgg a demee suñu jotaayu almisbaax tàmbali woon naa di waxtaane lu jëmoon ci wàllu sëy yi nekkoon na thème bu yaatu boo xam ne am nañ ci ab diir ndax sëy yi ñoo toll noonu ndax mooy famille rek buñ ko waxee te li ci aju ci dundug nit ki dafa bari li fi aju li ci aju ci dundug nit ki dafa bari jafe-jafe yi ñuy wax ci pénc mi dafa am jafe-jafe boo xam ne dañ koy coos rek te mooy fi ëpp ay problème mën ngaa wax ne mooy problème mu kër yi problème mu sëy yi sëy yi bari na lool ay jafe-jafe boo ko waxee mag ñi buñ ko doon wax dañ naan sëy yi léegi yi ma ne leen waaw sëy yi léegi yi ndax sëy yu njëkk ya naka jekk sëy daa yàgg ànd ak jafe-jafe ndax divorce du lu bees ami problème ci biir néegu sëy du lu bees yàgg naa am waaye jamono yi muy am daa am lu amoon te tàmbulee ñàkk léegi mooy li ñuy tuddee kilifa maanaam jigéen da daan sëy waaye day yëg ne daa am kilifa góor it da daan am soxna ba ami doom ba ay doomam tàmbulee nekk mag waaye mu am kilifa mu am kilifa xanaa xamoo ne nit ki daan na amub xaritam rek nga xam ne sax yéen a maase waaye nag nga def ko kilifa nag ci sa wàllu kër ak sa wàllu taxawaay nga xam ne tey boo meroon wala nga ami ñol-ñol bu agsee bu la nee noppil nga noppi dootoo wax benn baat ndax sédd nga ko cër dañ daan séddante ay cër ci suñ biir loolu moom euh, lu ma doon gone gone fekkee naa ci lu bari nit koo xam ne day sédd da jaaxal sax ñaar ñi nan la demee rek ndax wor ma ji dox ci seen diggante te moo ne ay xarit lañ rek maanaam benn ñoo doon ànd ba ñu ndaw ba sampu kër waaye tey bu ñol ñol amoon ci kër gi bu soxna sa woowee xaritu jëkkëram ji bu ñëwee ci kër gi bu ko nee noppil bu ma déggaat sa baat du déggaat baatam jigéen daan na ami jafe-jafe ku ñuy tudde nday dikke wala moroomum jeegam moo xamante ne defara ko tax a jóg waxuma nag jeeg bu ñëw naan la boo amoon fullaak bu doon man la wala lii yaa ko nangu wala li nga nekkee wala lim nekke yaa ko ci bàyyi wala jëlal say matukaay wala yow xam nga ne moos doo doo lambu ñi la ñi lay xool bari nañ man wax jooju laa xamul nuñ ko mën a waxee nit jigéen ju nekk ci biir néegub sëyam di sëy ami jafe-jafeeg boroom këram nit naan ko ñi lay xool bari nañ ay bu sàgganee ba ñàkk la xam xam nga ne kooku defar taxu koo jóg kuy defarub sëy doo wax baat yooyu doo wax jigéen juy sëy mukk bu sàgganee ba ñàkk la xam waaw moom kay boo demoon ba wax ji na ñàkk danga ko war a wax ne ko sëy moom daanaka benn neexu ci boo jógee ci bii it da nga duggaat ci beneen waaye da nga cay fekk lu lay neex ak lu lay naqari li nga tàmbulee tabax nag xëy suba màbb ko tàmbulee tabaxaat mën naa ñàkk kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi defar dafa bari woon yooyu daa bokk ci yi nga xam ne da daan defar diggante yi am na koo xam ne sëyam ba mu génne nañ ma baal bi mu duggaat bu yëgoon toog ca bu njëkk ba ndax li muy muñ di ñab-ñabal ndax bañ ñu wàññil ko ay sëy jigéen ñi am na ci ñu sonn ndax day bañ rek ñu wàññil ko ay sëy looloo koy bëgg a rey ci bii waaye moos lim ciy muñ bu ko muñoon ca bu njëkk ba mën naa am mu def ca ba tey léeg it mu dal góor léeg-léeg am góor goo xam ne soxna sim takk la ko naqari woon ca kam bàyyi lu ko yées a ngi ci kim takkaat lu ko yées fuuf mi ngi ci kim takkaat waaye nag pexe amut day mel ne day mujj yàgg day jàpp ne lu jag amut mu bëgg a yor kii di mu ñëlanteek moom ma ne kon bu ko defoon ca bu njëkk baat mu dimbali ko waaye ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci virage yu xat yooyu yu seere yooyu ci wàllu sëy war a soxla nag ñi ci jaar ba jàll léeg sant leen loo xam ne seen bakkan nanguwu ko seenum xel nanguwu ko seen xol da koy bañ waaye buñ demee tuuti gis ne lii moo gën loolu daa tàmbulee jafe moo tax sëy yi bari lool ay benke ñenke waxoon naa ci lu bari ba may introduire thème bi te jabbutu yooyu ma ciy jabbutu du jeex ndax li nga ci fekkee li nga ci dund ak liñ la ci nettali nit mën na ciy jabbatu ngirug dundam te du jeex danaa ci ñëwaat insha allahu taala buñ amaatee beneen occasion wu jabbatu ci ay jabbatu yu baree baree bari ci néegi sa yéeg jafe-jafe yeeg yi nga xamante ne léeg-léeg ñu ko waaye kuy sëy muy jigéen te bëgg ab sëyam jag na wut kilifa gu mat kilifa waaw kilifa gu dul daw ay responsabilité bari na jigéen ñoo xam ne fi mu ne dañ naan la damaa bëgg a génn ci sama sëy maa ngi ñaan baat sama borom kër léeg ku góor ki ne la mayuma la baat waaye tey buñ ñëwee ci par exemple ku mel ne man wax ma ko diis la problème bi nga conseillé ko ba ne ko an say kilifa danaan la sama kilifa ña nga fa waaye waxuñ ci dara wala ñoom ba ñu wooyee waa ji jotuñ ko wala bu ma leen ko waxee ñoom dañoo wax ne duñ fekkee fu ñu tasub sëy te nag nit day toll foo xam ne dañ koy lijjanti am na fu nit di toll dëgg-dëgg nag ay mbokkam ñoo war a taxaw nag lijjanti ko ay mbokkam ñoo war a taxaw lijjanti ko ñam am tañ dooni kilifaam ñoo ko war a xëyal nag may ko nag ay minute ci dund gi yoo xamante ne dañuy lijjanti di diggante yooyu waaye am na ñoo xam ne wéet nañoo ak seeni problème ba mi ngi leen di bëgg yóbbu bar sàq te bu ñu amoon ay kilifa yu taxaw waxtaane ko rek faju na bu yàgg moo tax booy dugg ci góor na nga dugg ci góor gu am kilifa booy takk soxna it na nga takk soxna su amee kilifa ndax jafe-jafe mënta ñàkk te ko am kilifa nag mën naa am doo réglé ji say problème ci mbedd mi loolu la sëriñ si Ahmad Tidiane si al maktuum yal na ko yàlla yokk yërmande doon wax ne ko am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd maanaam doo nekk di tuñ tuñi ba jamono jox lay solution waaye da nga am foo xamante ne fa ngay dellu toog ñu tegaat la ci yoon ci say gannaaw bi ma waxtaanee yi ma ci doon waxtaanee te mooy lu jëm ci ngoro maanaam labat ak ya nga xam ne moo ci aju. waxtaane woon naa wàllu takk ak na nga xam ne noonu lañ koy defee ñëwoon naa ci àq yi nga xamante ne moo dox ci diggante way dencante yi ba séddale ko kenn ku ne ci ñoom ñu jox ko li nga xamante ne mooy ay àqam ñu ñëwoon nag ci beneen boo xam ne joxoñoon naa la ko muy li ñuy wax euh, jëmmi sëy maanaam joxe ak ay booloo aljima te mooy li euh, boroom kër ak soxnaam di séq ca lal ba Mm-hmm. defe naa euh, loolu doy na ci ci ay ci ay joxoñ ngir ñu xam li ma bëgg a wax noonu la tudd euh, jote googu nga xam ne moom la borom kër ak soxnaam di jote dafa bokk ci àq yi nga xam ne dañ koo bokk maanaam dañ doon wax ci àq yi ne àq bii jëkkër a ko moom àq bii jabar a ko moom waaye jote moom ci kaw lal bi maanaam séq gii nga xamante ne dañ koy séq li dox ci seen diggante àq la boo xam ne àq buñ bokk la min uquqil mustarika dafa bokk ci àq yi nga xam ne dañ koo bokk mu dox ci diggante jëkkër ci diggante ku góor ak ku jigéen ki bokk nag ci yi nga xam ne yi ëpp solo ci sëy bi la bokk ci ci ëpp solo ma ne nag problème dana am ndax li nga xam ne moo ëpp solo ci sëy bi te kenn du ko waxtaane moom sëy bu am problème ndekete bari na problème yoo xam ne problème yaa nga tàmbulee ca lal ba te bu ñuy régler dañ fa dut dut baaraam bari na sëy yoo xam ne jafe-jafe yi mu am yëpp problème mu lal ba la rek ca lal ba la problème bi tàmbulee waaw te te ñun bu ñuy régler yeneen détail la ñuy régler dama laa woot téléphone wuyu woo ma ndekete yàlla xam na ne jotewu leen wooteem téléphone lal baa lal baa doxut rek waaw foofa moo doxut ni mu war a doxe waaye léeg bu doxee ni mu a doxe Euh, di ko yëg na mu ko war a yëgeek ya ca war a xew am na yu baree baree bare bari da nga naan amut solo di bàyyi muy jàll waaye bu fekkee doxut léegi ku jigéen ci naan la démb bi nga fakkastaloo sama dàll yi boo ma respecté woon doo ko fakkastaloo te fakkastalooy dàll mës sa indi problème waaye nag li indi problème la mënta tudd ci wu làmmiñam waaw li mënta li mënta li ma euh, jigéen léeg-léeg ngay waxtaan ak moom mu naan la li may dund ci sama sëy bi maag yàlla rek a ko xam waaw maanaam du la ko wax mukk nag <laughs> te kat danga naan kër gi moom eh, mi ngi dépensu di añaka reer ak ndékki ñu dëkkal ko ba noppi mu naan la li may dund yàlla rek ko ko xam léeg-léeg góor it noonu ma ne daa bokk ci ëpp solo ci sëy bi mooy li nga xamante ne mooy la ñuy séq góor ak jigéen ca ba ak yi nga xam ne moo ci aju moo tax sariya jàngale ko bu amewul woon noonu solo du ko joxoñ te ñun nag nanguwuñ koo tudd ci suñum pénc nanguwuñ koo tudd bu njëkkoon mag ñi ci seenu defar dañ daan tàggat jigéen nga xam ne ndeyam léeg mu wéet ak moom di waxtaan ak moom ni muy mayam ndox di waxtaan ak moom ni muy toppatoo jëkkëram waaye di waxtaan ak moom ci cetam ak nam koy toppatoo ca biir mu méngoog ñun léegi nag léeg ngi jigéen joo xamante ne dana wut bagage yu baree baree baree bari léeg sax ñoom ñu tudde ko seeni pharmacie waaw wut wut yu yëngutu wut yoo xamante ne day xeeñ wut ay daraa yu ñu dessiné bind ci bind ci ay yëf ba li nga war a séq ak sa boroom kër sax léeg ñu ñu dessiné ko ci daraa bi ñu war a lal euh, buy tëdd yëpp nga wut ko ba noppi néeg bi naqari am na am na loo war a am te amoo ko te yëgoo ko am na yoo war a am te yëgoo ko ma ne loolu daa bokk ci yi nga xamante ni yi ëpp solo la ci sëy bi ba noppi amaat solo yit ci askan wi ndax mooy tax nit di des ci kaw suuf maanaam bu góor ak jigéen doonul woon jote di séq la ñuy séq nit da du juddu te kon àdduna bi raaf ndax nit ñi dootuñu fi nekkati li nga xam ne nag mooy sàmm desug nit ñi te mooy produire euh, loolee sabab sa mu ngi amee ci ab sëy waaye yëmut ci takk ci jàkka ja dong waaye mi ngi yem nag da caa bokk nag di joxante ak ay yëmut ci loolu mu bokk ci li nga xam ne day tax nit ki diineem mën a ñoŋ diineem mën a ñoŋ ndax góor moom bu fekkee wér na bu fekkee wér na te toll ci day soxla di jote ak jigéen day soxla di jote ak jigéen ndax loolu wér-gu-yaramam da cee aju am lu war di génn ci moom te loolu faw daa war di génn te loolu faaw daa war di génn ki nga xam ne nag euh, li nga xam ne faw mu def ko te bu ko defee ci kum tëkkut mu tudd lu araam tudd lu diine di gàkkal ci moom fa mu koy jàpp ndale ba mën ko faa def te diine yoonalal ko ko loola daa bokk ci liy ñoŋal diineem ba noppi ñoŋal ab deram ab deram du yàqu duñ ko xas ba noppi daa bokk ci liy tax nag mu mën a wàññi ab xoolam mu mën a wàññi ab xoolam ndax li muy xool ci mbedd mi euh, ba nar a doye di bàyyi na ko biir këram te mën na caa jot ba noppi am mën na caa jot ba noppi am tiyaaba bokk ci li nga xam ne day gën a sàmm wér-gi-yaramam ci euh, man yoom moomu di génn bu ma waxee man yu fi mu ne du soxla ma ne maa ngi jéggulu waaye ma waxoon yeneen baat ci baat yi ñu gën a jege nopp yu koy dégg da ciy diis waaye diisaay bi du dara nag liñ bëriwut luñ koy dégg rek la maanaam mbir moo bëriwut lu nit di dégg bu ko déggee day rëy ci moom te lii nag waxtaane ko fañ ko war a waxtaane ak nañ ko war a waxtaanee te wodd wax ja moom wàññiwut dara waaw manees na ko wax nag te jéem koo tegginal suñ kemtulaayal kàttan ndax wax moom bu ñàkkee ay teggin rek solo sa néew mhm. wax ju mën a doon lu muy dëgg dëgg dëgg dëgg bu raflee ay teggin rek njariñ la day daal di tàmbalee néew moo tax léeg-léeg nga di koo xam ne danaan li may wax dëgg la di xotti rek waaye jamono ji ngay xotti am na baat yoo xam ne boo ko àbboon yokk col yokk colug baat bi ba mu ba mu solu ba jot du wàññi dara du ko tee àgg fa mu jëm te it mën nañ koo xam daa bokk ci la muy indi moom sëy moomu li nga xam ne mooy mbégte mbégtem bakkan mooy li ma doon wax léegi ak dënn bu yaatu ak dënn bu yaatu ca la nga xam ne moom lañ cay ame la nga xam ne moom lañ cay amee ci bànneex ak ay yëg-yëg alxuraan a ngay wax borom bi di ko xemmeem loo jaamam ñi naan uxilla lakum laylata siyaami rafasu ila nisaaikum hunna libaasun lakkum wa antum libaasun na yàlla nee na daganalal nañ leen daganalal nañ leen ci guddi koor gi guddi weeru koor daganal nañ leen maanaam boo wooree ba dog nee na nga jonjoo ak sa soxna dagan na dagan na weeru koor bëccëg gi lañ la tere woon soxna si waaye guddi gi yàlla nee na daganal nañ ko daganal nañ ko ba noppi mu teg ca ñoom soxna yi mel ne ku ne ay yére lañ ci yéen yéen it ay yére ngeen ci ñoom maanaam luy tax ngeen dal la sutura lañ ci yéen jumtukaay la bopp man ngeen cee bànneexu ñoomeen ñu bànneexu ci yéen kenn ku nekk mott li moroomam doomu aadama bi borom bi yëg ne daa soxla loolu ci wér gu yaram soxla ko ci dundam ba mu mel ne lu mënta ñàkk moo tax weer wi mu la teree lekk ci bëccëg gi ne la bu guddee dee lekk ka naan mun la bëccëg géet man nga cee bañ a sëy ak sa soxna waaye bu guddee nag ah bu jant bi xasee soo nag may naa la nga sëy ak moom mel ni bëgg laa wax ne la léeg ni saw yaram di soxlaa lekk ak naan ba tax defut koor gi muy luy continuer noonu it la saw yaram di soxlaa sëy bu dee bu dee bu dee bu dee ku wér te toll ci noonu lay soxlaa nag di jote ak jigéen di jote ak jigéen yëmut ci loolu waaye mu ne seen soxna yi seeni tool lañ maanaam mel ne ku la bëgg wax ne la sañ ngaa joteeg ñoom sañ sañ ngaa dem ci sa tool waxtu wu la neexe fatu xarsakum anna shi'tum waaw anna shi'tum yonent bi sallallahu alayhi eh, ba mu ne mën ngaa dikkee sa soxna ginnaaw mën nga koo dikkee kanam waaye mooy tandikul rek fi muy demee wanag loolu dinaa ci ñëw ci ma ñëwee ci teggee ni kii jokkook soxnaam waaye maa ngi waxtaane jubluwaayu Euh, euh, maanaam jote gi nga xamante ne mooy am ci diggante jëkkër ak jabar alxuraan yëmut ci loolu ci waxi borom bi subhaanahu wa taala waaye mu ne daa bokk ci liy wane ne mooy yàlla màndarga yi wane ne borom bi subhaanahu wa taala ci boppam mooy ci bind nit ñi te moom leen neena bindal gi ma leen bindal seeni soxna ñu dooni nit ne yéen ñu dooni nit ne yeen ndax lan ngir ngeen mën a amee ak dal ci ñoom ngir ngeen mën a amee dal ci ñoom moo tax su ma déggee nit ne euh, kër gi daa naqari kër gi soppaliku kaso ma ne rol ba moom am na fu mu foosee am na lu warta am ndax borom bi li tas taskunu ilayha la waxoon li taskunu ilayha boo nekkee ca fa ngay liggéeyee di ami jafe-jafe len li di baax len li baaxut ngay lijjanti léeg ñu yilif la di la yuuxu léeg ngay sóoraale waxtu wi ban heure laay wàcc boo wàccee ñëw ci kër gi nag kër gi moom daa war a neex kër gi daa war a dal nag wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja li nu ilayha loolu la yàlla wax li nu ilayha mu nekk loo xam ne daluwaay lay doon ci yéen mbokk yi bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko daañu wéyal suñ tomb waxtaan wi nga xam ne ci lañ nekk di waxtaan lu jëm ci wàllu sëy yi waaye ñëw nag ba agsi ci li nga xam ne mooy xew ci diggante borom kër ak soxnaam maa ngi jéggalu baax nag suñu kilifa yeeg jur yi nga xam ne ñooy déglu waxtaan wi waaye mbir la moo xamante ne ci dund gi la bokk te sariya itam jàngale na ko ñu di ko jéem a jàngale rek bu ñu rëccilee ba wax baat boo xamante ne mënoon nañoo wax bu ko gën a rafet ñoo ngi ciy jéggalu ndax matadik doomu aadama la waaye liñ bëgg mooy waxtaane loo xam ne danañu amal njariñ waxtaane loo xam ne itam danañ ci yëge njàngalem lislaam ak importance bi nga xam ne moom la amee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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahumma aafini